dal leen jàmm mbokk internet yi fii si Sénégal 7 tey jii nag ñu ngi si marché HLM 5 fas yéene xool tissu nekk tendance tissu nga xamante xale jigéen moom lañ koy xam fii def yaa ngi si jàmm dafa seen ñu wax tendance Korité bi yàlla xale jigéen tissu yi ñu fonk yi ñu bëgg lamb bi rek la am. waaw comme comme comme yan comme yan. comme genre tissu yi ay tissu yu bees la. nu mu tudd. yii tissu multicolore la. tissu multicolore yi bees tax la yu génn si Korité bi. soxna su loo tudd. maam Fari laa tudd. Fari tey lan tendance nga ñu mën a won ci Korité bi xale yi ñu préféré tissu yi. tissu fi am atum ren moom bëri na trop trop trop trop. na trop waaw est-ce que mën nga ñu won yenn. waaw nañ doxantu ñu won la. caw sa xiir yaa ngi ni. dégguma. ah caasu xiir la am na tissu. am na noir am na rouge bordeaux am na bleu de nuit am na beige am na rouge champagne yëpp a ngi nii yëpp ay tendance yu bees la. waaw ah, mais caasu xiir yi moom nar naa toj korite bi de. waaw fi kay lii moom ku ci sañse rek moom da ngay wàcc. Eh, Youssouf Cissé la def. alhamdulilah barikala. waaw ñu ngi waajal corté bi ñu bëggoon xam tendance corté bi tissu yi xale jigéen gën a préféré. ren nag moom tissu yi moom brodé moo xew wala mbassin riche wala jesner wala til til til til aussi xew na trop daal. macha allah est ce que mën nga ñu won yenn ci li nga wax. xale yi ko mag ñi bëgg nañ ko. produit la waaw. te seen ah, dañ ko yombal dara bu baax. kala Aram waaw fii de moom yu baax ak yu rafet rek ñoo fi nekk moom macha allah fii moom mooy daara ji moom. tendance korité bi ñu ngi waajal jëmale korité bi yow loo gis ci tissu yi est-ce que bëri nañ est yomb na est-ce na. waaw fii de wax dëgg yàlla ñoom am nañ yu rafet yu yomb yu baax yu am qualité waaw. ba nga dugg see fii ba nga génne ci satisfait. waaw bu baax sax ci laa dëkk. ci nga dëkk waaw jërëjëf soxna si merci. non dañ lay jaay tissu wala garniture lépp fi yomb lépp lépp lépp lépp lépp xoolal li xoolal bleu bi xoolal bi. gis nga lii lii tamit xale bu ci sañse rek ëpp na. ñuy wax ne commerçant yi dañuy wax ne seerul seerul te bu ñëwee fii lii ñu leen di wax ay prix yu dëj métti métti. dañ leen koy accuser mooy commerçant yi dañuy wàññi wàññi ba sës dañuy wàññi ba xam a xam nga rek jaboot dafa métti te ñun ñëpp dañuy sóoraale am ak ñi xaw a néew doole yëpp dañuy sóoraale moo tax dañuy caché prix yi ba mu wàññeeku daal. yéen est-ce gis seen bopp ci corté bi waaw ah, Korité bi moom waa client yi ñi ngi ndànk-ndànk rek ñi ngi ndànk-ndànk rek ba prix bi tàngul non prix bi tàngul fii moom ah. fii moom leen ba egsi fii nii rek fii moom bu ñëwee dañ a ñëw ndànk-ndànk commerçant yi ñu ngi gisal bopp gis seen bopp bu baax a baax ci tendance Korité bi ñu ñuy wax ci ay tissus yu bëri yoo xamante ni ñu ngi ci tendance ñu ci gën a jàpp mooy caw su xiir ba nga xamante ne tissu la boo xamante ne ñu ngi ko génne ren pour corté bi lu ci mën a doon daal ñu ngi xaarandi bu baax a baax euh, clients yi ci boutique yi loolu lañ leen indiloon tey ji Sénégal 7 di leen dox dig daje beneen yoon ci seen beneen numéro tendance incha allah ànd seeg Omar Diallo comme d'habitude ak seen cadreur Aliou Ba merci